bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim suñu qasida tey القطب المكتوم والبرزخ المختوم سيدي أبو العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعنا به آمين te xasida ju rafet la bokk ci diwaanam bi mu def ci Mawlana Cheikh Tijani radiyallahu anhu Cheikhul Islami wa barakatul anami alxaaju ibrahim nee na naa la tijaani naa la tijaani abul abbaasi ayaati qad faaza minha qutubun bil karamati naa la am na tijaani cheikh sidi ahmed tijaani abul abbaasi dàkkantal la ci ku tudd ahmedu ni ñuy dàkkantalee abu xafs ku tudd umar abal xasan ku tudd ali abal qasim ku tudd muhammad sallallahu alayhi wa waaye abul qasim nag bu ko yonentu jagooyee du mu jur qasim rekk a tax waaye mooy ni nga xamee ne yàllay waaye li nga xamee ni mooy séddale alal itlaq di sédd nu bépp nabiyu noonu la délégué wilaayatu it Cheikh Sidi Ahmada Tijaani di ko euh, séddale bépp waliyu moo Abul Abbas bokk ci euh, mandarga yee ko ña jiitu doon xàmmee te doon ko tegtale ñi ñëw ah ne xatmul wilaayal muhammadiya bokk na ci ay mandargaam abul abbas lay tudd moom lañ koy dàkkantale dëkkuwaayam nekk faas waaw ah, mu bëri linkaar nag koy linkaar waaw ah, naa la am naa tijaani abul abbaasi ayatin ay kéemtaan yoo xam ne qad faaza texee na qad faaza min ha amee na ca qutubun ay qutubu bil karamati karama yu dul jeex ah ilaw liya karamatun la tunkaru humma duaau nafuuhu muathiru karaama waliyu boo gis bu mu bumu rek xamal ne barke Cheikh Seydi Ahmad Tijani la karaama waliyu mooy xar baaxam bu ci nabi ñu koy tuddee mu'jiza parce que moom sañ na def taxaddi waliyu nag teranga la moo tax sañul def taxaddi amul lu muy prouvé waaw moo tax du def yee kenn waaw li Aïcha wax li Aïcha al-Faxru iz jaa'at bi sayyidina qutbil qutubi faridan fil maqamati li Aïcha waaw ah. tarxiim la waaw ah. dañ yonentu sallallaahu alayhi wa sallam daan na woy ndey Aïchatu Aïch waaw ah. li Aïcha ñeel na suñu maam di yaayu Mawlana Cheikh Seydi Ahmed Tijaani ndey Aïchatu qaddasallaahu sirraha ñeel na ko alfaxru ndam moom rekk am puukare waaw taqdim jaa tax id jaat id jaat ba mu dikkee id ngir jaat dafa dikkee bi sayidina moo doom ju tudd Cheikh Seydi Ahmed Tijani moom rekk ko am mooy sayiduna mu ne xutbil xutubi xutbu faridan mbiram nekkam di aji wéet nag fil maqamaati ci maqamam yoo moo yore xilaafal uzma moo yore al fardaniya al kubra ah mooy moo yore al xatimiya wala ko ak katimiya yëpp mu ràng ah maanaam kenn ci jigéen ñi amul teranga amul puugare ju toll ni teraanga ak bugëre Seyda Aïcha Tijani ah xanaa jigéen ñi jurun yonent yi ah jigéen ñi jur saxaaba al kiram ala al anbiya salatu wa ala saxaabati ridwan ñoom rek ñoo kawe teraanga nde Aïcha mi waaye gannaaw anbiyaaw yeeg saxaaba yi kenn amul li mu am ndax kenn jurul Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu ko kan la mu ne xatmul wilaayati wala neexee nga ne xatmil wilaayati ndax bi sayidina wala neexee nga ne xatmul wilaayati mu nekk eh, xabar mubtada mahdu ay huwa xatmul wilaayati Cheikh Tidiane moo tëj wilaayatu Muhammadiya maanaa firiwul ne gannaawam waliyu du am waaye yegg na ci wilaayatu fu kenn dul yëkkati am ba pare ko amati moo la seeta waaw ah, moo moo ne ku mosa am sax moo la seeta ci wilaayatu am sultaanul wilaayati mooy buuru wilaaya gi waaw baabul lil wilaayati mooy bunt bi nga xam ne ku ca jaar jot ci wilaayatu bunt boobu Cheikh Sidi Ahmad bal miftaaxul wilaayati waaw xatumul wilaayati sultaanul wilaayati baabun lil wilaayati miftaaxul wilaayati mooy caabi wilaaya waaw waaw falaa waliyun illa min baxrina yus xamee ne yonantu mooy nàndal euh, bépp nabiyu naka noonu Cheikh Seydi Ahmada Tijaani mooy nàndal bépp waliyu hmm. moom la ko délégué wa mu ne lidaka himtu garaman min mawaddatihi taataduni zafaratun kulla awqati lidaka ngir loolu ngir loolu himtu garaman min mawaddatihi ci laa gëlëmee man alaaji Ibrahima Niass ci cofeel gu ma ko sopp maanaam boo gisee awma sago ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane fi ko yàlla teg la waaw moo tax ma gëlëm ci moom sopp ko cofeel goo xam ne foo ma gis taataadu ni zavaratun kulla awqati waaw taataadu ni di ma dikkal mërratan baada mërr safaraatun ay binni jooy yoo xam ne dafa ànd ak binni ndax tàng ndax tàngaay cooyal gi ma am ci Cheikh Sidi Ahmed Tijani kulla awqaati sama waxtu nag foo ma gis rek rongañ ak binni yi ñoo sama cooyal Tijaan Tijaan fa kayfa tunkiru xubban ba'da ma shahidat bihi alayka uduulu tamay ndax safaraat bu dakkut borom foog mu feebar waaw foog mu feebar moo tax cofeel cofeel lu ne la man waaw nee na aqsamtu bi tuuri inna أقسمت بالطور أن الشيخ حملني ما دك ما دك طور به وقت المناجاة aqsamtu bi tuuri maa ngi gëñ ci la yàlla gëñ di doj wa mu e, dalalee Muusa wa mu recevoir Muusa alayhi salaam aqsamtu bi tuuri inna cheikha xamalani ma dakka tuurum bihi waqta almunajati wa wa wa tiini wa zaytun wa tuuri doj woowu maa ngi cee géej tuuru Siina ne ne inna cheikha Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiallahu anhu xammalani yennama maa loo xam ne dëkk tasee na maa dëkk tuurun bi loo xam ne tuuru Siina sax tojee na ca tasee na ca tasara waxtal waxtu wa yàlla di diyo Muusa jël lii ba sama borom def ci tuur ba jabal ba écrasé wu nee na te jël lii boobu dégg nga moom la Cheikh Seydi Ahmed Tidiane def ci man ndax yàlla la ma yéen waaw yàlla la ma waaw yàlla la ma waaw aqsamtu bi tuuri inna cheikh xamalani mbóot mi may Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi yéen mbóot la moo xam ne euh, tuuru Sinaa saxaltandu ko waaw tuuru Sinaa ba yàlla di deyaaleeg Moussa waxtal munaajaati ba Cheikh Tidiane di deyaaleeg man waaw kanay Cheikh Tidiane Cheikh Ibrahima mu ne xalifatullahi ramzul kawni ruuxu jamiil xalqi wa huwa la aslun lil wujudaati waaw xalifatullahi mooy xalifa mooy xalifa yàlla eh, ramzul kawni mooy junjig nekk gi ruuxu jamil mooy ruuxu mboolem mbindeef yi waaw wa huwa moom la aslun cosaan la lil wujudaati ñeel am ya moo xam am ya imam Ghazali daan lim al wujudatul arba wala am yeneen yi ndax Cheikh Sidi Ahmed Tidiane muy xalifa rasulillah te yonentu kët eh, fu yàlla di yàlla mu di fa jaam te fu yonentu di jaam Cheikh di fa xalifaam di fa xalifaam waaw sama borom tabaraka wa taala nekkee ci xaawatu yonentu nekk di sirru di sirru waaw sirru di sirru bi sama nekk nekkee ci laahut mu di ruux bi mu nekkee ci jabarut mu di qalb bi mu nekkee ci malakut muy aql bi mu nekkee ci eh, naasut muy nafs moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam nekk di nabiyu aaliman bi nubuwwatihi wa adahu bayna al wala ma wala adam wala ma wala tayqa Cheikh Tidiane di xalifaam di waliyu aarifan bi wilayatihi wa adama bayna almaa'i wa tayqa mhm. moo tax mubarriqul barq mir'aadu ruudi wa min taaru lmuzuni wa min wa min qaadu lbariyaati mubarriqul barqi mir'aaju ru'uudi wa mintaaru lmuzuuni wa minqaazu lbariyati mubarriqul bark mooy mellaxal melax gi mir'aaju ru'uudi mooy dënna laa koonu dënni wa mintaaru lmuzuuni mooy tawalaa koonu niiri wa minqaazu lbariyati mooy xettali ka xettalihaa koonu mbindéef waaw ndax mooy xalifatullaahi fi yi te yàllaay joxe yonentoy séddale ki yonent ki wuutu yonent ci séddale gi mooy def yii yonent di def yëpp ci séddale te yonent miy séddale li yàlla di joxe yëpp ci moom la koy jaarale loolu rekk la waaw loolu rekk la waaw pour mu لا قعبان من لبن تلك الوراثة من أعلى العرومة أو تلك لولي المكارم تلك يوم تد المكارم يوي ترانغ يي ركاي ترانغ لا قعبان من لبن du caageen ñaari koppi soow du caageen ñaari koppi soow waaw du caageen ñaari comme yi yooyu teraanga xam nga Ibnu Isxaq nee na Abu Salt ibn Abi Rabia Thaqafi Ibnu Hisham sax nee na danañ wax ne Umayya la Umayya ibn Abi Salt moo waxoon wax ji Sayf ibn Abi ba mu doxee dégg nga ca jëm ca Qaysar mu bëgg mu dem ca omu mu boole ko prisonnier ya ak eh, la ca nekk ya ba mu ñëw libéré yaman génne fa mbokkum abraha génne fa laxbaash ñëpp di ko ndokkeel ñëpp di ko ndokkeel ñëpp di ko ndokkeel ne nañ sax Seydina Abdul Muttalib dem na fa ah da ngeen ko jàng ci siira ak xew ci bicharaat nag na ko ëllu siyaar wax Umayya nag lekk fa xeeti teranga ne ah lii rek ay teranga waaye ñaari koppi soow du teraan tilkal makarim laa qaabaani min labani shiba bi ma in wa aada baadu abwaala waaye ñaari koppi soow yu yaxaseeg ndox nga xam ne boo ko naanee ca douche ba la mujj lay mujj nekkum so nekkum saw waaw soow muy mujj mujj dim saw nee nga du teranga yow sa teraanga yow say bëb nu say mooy teraanga te booba eh, booba soow la la la la la la kor teralee gan ba Abdullah ibnu Judaan mi nga xam ne boo daa dugg màkk mbaa ngay jóge màkk dalaa teralee soow ci la commencé eh, wut eh, dafa mel ni béykat bi moom lay gaaral ak ñi mel ni moom maanaam li ngeen yore kopp soow la du teraanga teraanga mooy li saytu ni la yeesal di defal kenn ba defee moom mu commencé nag eh, di wut burra bu ñu jaxaseeg chahati lem bi lem chahatu lem mu mel ni lii eh, suñu mbokk yaman yi di tuddee ma naka la tuddati maasu af subul yamini ba alal ju bëri mu yàqu ci ndax looloo gën a cher waaye bëgg dugg ci teraanga ja umayee wax ne looloy teraanga tilkal makarim laa qaxbaani min laban kàddu yooyu nag la alaaji ibrahima mooy jëfandikoo fi ni cheikh tijani radiallahu anhu li la yonantu defal mooy teraanga leneen lu dul loolu eh, lëf la rek ci teraanga yow rek yaa am teraanga parce que ku ku dul yow rek mi ngi ci sa suuf ku dul yow rek mi ngi ci sa maanaam ku dul yow ci awliyaaw yi rek as tuut la am ci li leen yonentu defal waaw te loola it yow la yonentu jox nga koy séddale ah, la yonentu jox nga koy séddale moo tax tel quel wirasatu ah tel quel loolu le tel que yooyu le al wirasatu mooy ndono gi min a'laa hurumaatihaa tukkee ci gën jàkkawee ji cosaan waaw waaw waaw nga ne ko ki nga bëgg a wax kan la mu ne haada ibnu fatimati rafa nubuwati haada ahmadul xatmu mu'til lil maqamati haada ki may tagg ibnu fatimati mooy satu sayyidatuna fatima az-zahra bint sayyidina rasulillahi sallallahu ubaru nubuwati mooy banqaasu nubuwa gi hada ahmadul xat kii mooy cheikh saydi ahmad tijani radiallahu anhu mi tëj wilaayatu mutin kii mooy aji joxe lil maqaamaati ku seddu moo la sedd waaw hada alladi minhu arju kulla awinati nayla li wutuuxi wa tashilal maramaati hada alladi kii mooy waa ji nga xam ne minu ci moom arjo lay yaakaaree kulla awinatin jamono june ne leen fa tuxi am fatu yi fatu yëpp nag fatu yëpp nag ne leen fa tuxi fatu yëpp nag waaw fatu yëpp nag waaw wa tashil al maqamati wa tashil al maramati ak jàppandi ak jàppandi càkkuteef yi waaw waaw ci Cheikh Tidiane laay yaakaaree sama borom tabaraka wa taala ubbi ma ubbi ma ubbi ubbi ubbi ma ubbi yëpp nag waaw ah, jàppandal ma sama càkkutéef yëpp na waaw ah, ndax barkeem barkeem ah, mën na lu ne waaw barkeem mën na lu ne waaw barkeem mën na lu ne waaw parce que ku yàlla barkeel sa barke mën lu ne waaw yàlla ñu yàlla barkeel waaw mu ne azka salaatin wa taslimin ala sanadi wal ali wa sahbi wal ali wa sahbi shuhbi azka salaatin gën caa sell ci julli wa taslimin ak jàmmal ku mucc la ala nekk ci sama wéeruwaay bi mu yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam wala ali ak ñooñom waaw ku bokk ci banu Hachim te ko rek ci aalum nga ñi nga xam ne duñ jël sa kat kay waaye bu dee ci wàllu ñaan jullit yépp aalam lañ alayhi salaatu wasalaam wa sahbi ak sant ak i saxaabaam ak ah, képp ku dajeeg moom te gëm ko te dee ja lañ lay wax lañ lay wax ñooy ñan la mu ne suuf bi ñi nga xam ne ñooy juum yoo yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy takk pour leeral lil xaliqaati bi dee fi ku gis leer rek eh, yonentu la waa këram ku am yàlla rek yonentu la waa ku gëm rek yonentu la ak waa këram waaw ñooy làmp yi leeral yàlla nañu yàlla leerale ci ñoom ba ñuy leeral ñu nit ñeneen ci seen barke allahu sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi